ak kii bi loolu la teg ci loxo ay autorité supérieure mais nee nañu du loolu lii moo tax ñuy grève et que ñiy grève ñëpp dañu leen interdire l'accès euh, amuñu visite amatuñu accès ci téléphone loolu moom waxoon nañ ma ko bëggoon naa ko signaler d'accord rapidement juste pour sa question mm-hmm. euh, gis nga démb bu ñu demee ci euh, te xam naa dinañ ci ñëw mooy mooy mooy mooy transition bi question Pape Alé bi mais démb bu ñu demee ci primature muy Petit Palais bi nekk hôpital La daan Dantec mm-hmm. dañu ne suñu génnee rek bi ñuy def déclaration de presse parce que xam nga réew mi dafa xaw a jaxasoo nit ñi dañ lay gis nga dem wuyu ji premier ministre rek ñu foog ni danga dem pour jaay combat bi wala da nga dem pour tayle combat bi. or c' est ce n' pas du tout ça. on est des personnes responsables. xam nañu ban responsabilité lañ endossé te ñu ngi koy depuis boobu ba léegi ñu ngi koy assumer pleinement. Mhm. moo tax ñu ne woon su ñu génnee foofu rek on ne va pas laisser gouvernement di communiquer lu ko neex. ñun on va faire notre communication. Oui. faire une déclaration de presse. ci biir loolu am ñoo xamante ne certes bokkuñu woon ci délégation bu waroon dugg ci biir mais dañu ne nañ fa daje suñu génnee au moins ñu nekk comme ni ngeen koy waxee nañuy taxaw ci ginnaaw kuy def déclaration avancée loolu moo ñu yóbbuwoon foofu. bi loolu amee aussi am suñuy ñetti camarades yoo xamante ni teg nañ leen ci loxo parce que lenn la ñu wax libérer Pape Alé Niang mais loolu su fekkee ni libérer Pape Alé tax na ñu arrêté la violemment. gis ngeen George Floyd naroon na fee am démb vous avez tous vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux mhm. un policier bu jël conc tànkam óomam bi teg ko ci baatu nit bu muy yuuxu yuuxu yi métti métti mu yàggal ko fa nag def lu ko neex loolu la ñu war a dénoncer ci réew mi liberté d'expression boobu ñu bëgg a privé tey sénégalais yi parce que ñaata détenu politique ñoo nekk ci kaso bi liberté d'expression moo tax ñu jàpp leen mhm. liberté d'opinion nit bu ñëw kay premier ministre ngi noonu taxaw libéré Pape Alé Niang libéré Pape Alé Niang lu ci jar tëj ba actuellement fu ñuy waxee ak yéen nii ñu ngi leen séquestré biir commerce commerce Ousmane Sarr na Gueye ak ku ñuy wax Mohamed Malang Mohamed Sourang Diallo bi bokk ñoo lank moom ñoom ñetti ñëpp ñu ngi commissariat wu euh, central ñu leen di toppee participation ay une manifestation non déclarée ñun ay responsable yu mel ni ñun xam article 96 lu mu wax bu code pénal ne sooy def euh, manifestation di nga dugal 3 jours avant au plus tôt 15 euh, jours avant au plus tard ñun ñu xam loolu kan moo manifester bu ñu leen di toppee non la mooy manifestation non déclarée y avait pas une manifestation y avait pas une manifestation tey teg na leen ci loxo d'accord Georges et nous exigeons leur libération. d'accord Georges tey jii euh, ku scandé libéré Pape Alé Niang également Pape Alé Niang dans les liens de la détention sans que ci ngoon gis nañu benn communiqué boo xamante ne mi ngi circulé euh, ki nga xamante ne moo ko bind moo di Pape Alé di wax li nga xamante ne lañ ko waxoon mu tax mu introduire demande de liberté provisoire pour ñu élargir ko euh, ñu dem ba ci biir. procureur ci boppam rétracté wu te loolu la ñu waxoon ses avocats pour mu bind que ne dootul waxati ci dossier bi signé il l'a fait sur la demande de ses parents également. tey jii waaw man liir naa liir naa lettre mais bon bi mu ko njëkkee lii sax man dama ne non est-ce que lii c'est pas de la manipulation wala quelque chose comme ça mhm. parce que démb rek am na benn communication bu mu defoon depuis son lit d'hôpital ba ma mhm. gis ko mooy bu muy wax que ne moom il préfère Euh, bu fekkee ne moo ko bind tamit mais tant mieux l'essentiel est que ñu may ko liberté provisoire mu dem parce que comme ni ko presse bi waxee tey ce matin ak mobilisation bu fi am ma koy lu tamit parce que Pape Alé du criminel mmh. euh, c'est pas un voleur de milliards voleur de milliards yaa ngi fi am pagaay ñu leen ñu leen ñu di woo sax pour ay dialogue mhm. donc je ku mel noonu nga xam ne dañ ko jàpp dans le cadre de son de l'exercice de ses mhm. di ñaan liberté provisoire ba mu njëkk am pour première fois ñu xëy encore jàppaat ko ne parce que tu as violé le secret de l'instruction man j'ai l'impression quand même première fois bu ñu mayee Pape Alé liberté provisoire en fait am na ñu xam ne kontaanu si woon de telle sorte que la deuxième fois il a fallu juste d'un nekk ñëwaatal mhm. parce que tu as violé le secret de l'instruction ak ñu ne buñ ko bàyyee loolu lay indi Pape Alé mënul créer trouble à l'ordre encore mhm. moins que lu mu lu mu wax noonu ban secret instruction la violé lan la wax si ñi ko dégg muy wax est-ce que wax na ne par exemple juge def ma laaj lii ma tontu ko lii wala lii la lii laa prévu laa joxe voilà donc là je crois que vraiment c'était juste un prétexte fallacieux mais lu ma gën a euh, soxal mooy lan mooy euh, ñàkkal fula ñàkkal fula boo xam ne moom la autorité bëgg a jox dossier boobu parce que euh, tey wala démb si guddi à 23 heures xam nga ndax liyen nga ko il le tweet de benn autorité euh, des Nations Unies. ou Mary Lawler. bi def benn euh, tweet naan maa ngi xibaar yi jógee Sénégal di ma parvenir fii. Mhm. Euh, c'est pas des des nouvelles rassurantes par rapport. à l'état de santé de Pape Alé de nekk journaliste Vérité Sénégal. Mhm. donc maa ngi ñaan autorité pour ñu bàyyi ko rapidement. sans condition c'est Mary Lawler de Mary Lawler waaye. mooy toppatoo en tout cas lépp luy. droit de l'homme ak yelleefu ñoo xam ne da nga nekk détention mhm. mais j'ai tout de suite vu que euh, la ministre des affaires étrangères madame Aïssata Tall génn benn communiqué pour di ko tontu di ko naan no Sénégal état de droit la Pape Alé Niang nu ko jàppee il est sous surveillance à l'hôpital que vraiment Sénégal euh, kenn euh, euh, liberté d'expression am na fi e que il existe aussi ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs maanaam euh, exécutif boo xam ne président Macky Sall moo ko yore ak euh, la justice. Mm-hmm. kenn mënu leen a kenn ki mënul dicter sa morom mais kan mooy tere kan mooy euh, interdire la liberté euh, comment on appelle les libertés provisoires c'est pas le procureur mm -hmm. procureur kan mooy patron c'est pas le ministre la justice ministre la justice kan mooy patron c'est pas le président la république mhm. donc bu leen ñu gëm loolu nag quand même am na yoo xam ne bon <laughs> am na yoo xam ne c'est c'est quand flagrant ensuite peut-être que moom de ministre des des affaires étrangères des tontu parce que kële dëkkul mu koy tontu en tant que. mais euh, kooku tontuwaat na tamit. mais tontuwaat na mais. man j'aurais préféré que sax ma gën ko jox gëdd bu fekkoon ne ministre de la justice moo def sortie boobu pour. expliquer parce que xam nañ ne moom mooy patron koo xam ne moo téye Pape Alé en prison aujourd'hui. juste un petit commentaire ci ministre bi lu mu wax. Mhm. parce que lu mu wax du dëgg ñun Sénégalais yi xam nañ du dëgg. Mhm. mi ngi wax ni liberté d'expression am na fi te yéen ñëpp xam ngeen Ousmane Diagne léegi mu def cinq mois ci kaso bi benn. publication la partage ak ay reetaan émoji riir lu naqari lopp su neex nañu loolu la wax mi ngi ci kaso bi ñun ñëpp xam nañ ni Papito Kara revue de presse di reetaan loo ay nit la lañ ko toppee mhm. ñun ñëpp xam nañ ni professeur Cheikh Omar Diagne ak ki nga xamante ne mooy Abdou Karim Gueye léegi ñu def seen ñetti weer ci kaso bi te dara yóbbeewu leen ko lu dul loo xamante ne waaw léegi waxtu bi xoj nañu léegi par rapport à votre lutte est-ce que vous allez maintenir la pression effectivement donc euh, effectivement d'ailleurs vendredi bii yaa y un rassemblement au niveau de la place de l'obélisque objet bi lan la objet bi mooy na sénégalais yi génn muy mu la libération des détenus politiques mais aussi rapport bi waaye yeewi askan bi boole nañ ci seen rapport bi donc il a une manifestation chaque jour bi est-ce que finalement du mujjee ci kii gouvernement bi sax xaw a jàpp confiance que ni comme nit ñi génnuñu Euh, grawul. non moo tax ñun sénégalais yi ni ñuy waxal sur cette question. d' accord ñu continuer di mobiliser wu. parce que alal ji seen alal la. d' accord ñoo ko moom bu ñu toog di seetaan ay doomi bor ay ñoo xamante ni leen ko dénk ñu luubal ko dugal ko ci seen i intérêt crypto personnel au même moment ñaata nit ñoo dee ci hôpitaux yi. d' accord merci beaucoup euh, Pape Abdoulaye Touré Issa Tine également ñu lay jaajëfal Georges Nesta Diop ñu lay jaajëfal waaye di jaajëfal waa wa également ci euh, conseil.